ñoo xamante ne tey ñu ngi war yi xale yi di programme ay ay ay événement yoo xamante ay tëj saison ay ubbi saison di ay xeetu caaxaan yoo xamante ne daal suñu borom maanaam bugg ko te baaxul ci li nga xamante mooy jeunesse bi te lan nga wax tey ci loolu voilà waaw dëgg li nga wax dëgg la ndax jamono ji dafa toll foo xam ne dafa yàqu ndax doo xoolee bu njëkk mag ñi ndax suñu boroom dañi ndaw ndaw ndaw lu ndaw lu ma jox boppam moom la gën a bëgg ni mag mag mu koy jàmm bu njëkk nag danañ daa gis mag ñi dañ daa dañoo war a delloo delluwaat ci njàngale mag ñi ndax doo xoolee mag ñi dañ daa jël xale yi daa leen yar ci siraatal mustaqim yar leen ci diine te leen dugg si daara ñu jàng alxuraan du noppee ñu tarbiyee leen teewul nag njàngum français mi baax na daal waaye ba tey waajur yi laa ko jox ndax euh, doo xoolee yi xew fan yi ci réew mi rek day xaw day waar daal ndax doo xoolee at mi amul at mi jeexul bën koy tëj ndax caaxaar yi nii yii nii yii nii at mi maa weeru koor ba bàyyi ba ni suba la mu desee ak samedi ñu wër di def ay caaxaan def yu ne yi kën xamut naa dañuy tëj saison bi ma ni yàlla da am saison bu ñuy tëj yàlla doxewul noonu li may wax rek mooy parent yi nañ gën góor góor yar yar yar yar yar xale yi ci wàllu alxuraan maa ñu dellu dellu si njàngale mag ñi daal duñ delloo si njàngale mag ñi rek incha allah yaakaar naa éducation parce que mag ñi koo jël koo jël ay téere noonu doo ko jàngee waaw doo ko jàng du nga ko jàngalee ndaw ñi rek jàpp naa ne ndaw ñi dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ dellu ci waat euh, li ma ciy wax rek mooy nit ñi ñi dellu ci waat ci njàngalem lislaam rek en tant que musulman doomu jullit da ngaa war a fexe ba li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nga fexe ba teg foofu sa doom ndax dafa waxoon ne kullukum raahi wa kullukum mas'ulun an raahiyatihi waaw ku ne si yéen sàmm la te ëllëg ku si nekk li nga doon sàmm dañu nak nga doon sàmmee suñu borom wax ci alxuraan ne yéen ñu gëm yàlla fegal leen seen bopp te fegal seen ñooñ sawara yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran kon loolu rek day wane échec gi nga xamante ni am na fii ci suñu réew damay wax ne quatre-vingt-quinze musulmans te doxewu ndoxuñu lislaam day mel ni delti ginnaaw am na ci li nga xam ne moom mooy diina ci kon loolu man daal li sama kii mooy nit ñi daal dañoo xaw a desal ginnaaw njàngal lislaam loolu daal mooy sama moom moom daal gis naa ko bu baax a baax a baax. xoolee ci euh, fi mu bokk muy waa Kër doo koy suñ tubaa mi wax ci téere bi naan tasawuf si xaar naan yaayoo sib yaan yéen ndaw ñi bu leen wutoo lu ak njub waaw maanaam téere boo xam da koo jàngal da koo da koo da koo da koo taalif ngir jox ndaw ñi ndaw ñi di si jàng ngir idi koy kon nag mm, parents yi daal laay wax daal nan gën a rek ci njàngale mag ñi xam nga boo xoolee Sénégal day mel ni diine ji da ngay ba jàpp ne maanaam day mel ni rek la kon loolu xam nga day war ne échec am na ba tey te yalla suñ borom dafa wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla mu ne bindu ma nit ak jinna lu duñu jaamu kon fii yàlla dañu fi indi ngir ñu jaamu ko waaye indi fi ngir ngir ab po waaw da ngay gis léegi ay tëj leen saison ak tëj saison xam nga yooyu boo xoolee échec la daal waaw te fi doon na si ñoo xamante ni tey boo leen laajoon li nga xamante ni moom mooy seen mbirum diine nu ñuy jullee nu ñuy jàppee xamuñ ko te loolu nag damay wax ne ñi nga xamante ne ñoom la ñu dalal ci télévision yi rawatina nag euh, émission yi mag yi am war nañ see xoolaat nag maanaam li ñu nekk di jàngal suñu mag ñi fexe ba bañ ñun xam suñu diine loolu moo moo solo daal moo ko solo tout le temps nga teg nit ñi di wax naan sama sama sëriñ moo fi def lii moo fi def laa d'accord am na njëriñ mais loolu sa sëriñ la engagé te kenn ëllëg yoo ma xam yàlla du xëcc kenn di la naan sa sëriñ ak sa jëf déedéet euh, je pense que tey ay tëj saison ubbi saison je pense que du affaire de musulman parce que en tant que tey musulman jeune war nañ xalaat leneen lu wuteeg ay tëj saison je pense que phénomène bu nga xam ne la religion diglewul ko peut-être société moo ko dicté mais waruñ topp tamit suñu nasu bakkan ba tootu ko ñuy wax ay tëj saison ubbi saison man étant jeune musulman je condamne fermement ça su ma sañoon ñun ñëpp dañuy conformer par rapport à la religion lépp lu ñu digal ñun ñu koy def surtout nag ci ndawu jullit voilà man loolu laa gis. te lan ngay conseillé ma xam ne jeunes yi nga xam ne ñu ngi koy def actuellement ma leen di conseillé en tant que jeune c'est-à-dire doon lu nga xam ne lu baax la. su ma sañoon kay suñuy tëj saison dañ koy tëjee ci neneen voilà lu nga xam ne lu baax la peut-être euh, saison moo jeex saison la ñuy ubbi mais ñu organiser peut-être des actions qui son de solidarité voilà des peut-être des des campagnes pour donner à des personnes des aides quel que soit de ce genre quelque chose qui est bon man noonu la ko gisee. instant bi jamono dafa toll foo xam ni kuy faw yaa ngi yaa ngi tardé surtout Sénégal gi nekk nag. jeune bu ci fo yaa ngi tardé ndax jamono xaaratuñu temps bi xaaruñu li suñu waajur waroon liggéey liggéeyaluñu ko ñoo ko war a liggéeyal suñu bopp ñi fi nekk jiite ñu tam liggéeyaluñu ñoo war a liggéeyal suñu bopp kon kuy fo rek yaa ngi tardé ñun amuñ jot foofu liggéey rek lañu xam gis nga xola tey ci waar bi lañ nekk nii te te lañu jëm buñ paree julli tëdd nelaw li si des nag ñu bàyyi ko suñu loxo suñu borom. waaw loolu moom xam nga benn côté tolluwaay la rek mais après nit ku ne instant bi war nga conscience dara quoi. parce que ñun tamit soo xoolee autant suñu papa avant ñu am 25 ans lañ doon mariage xam nga teel a am njaboot mais ñun léegi ñii da ngay gis punkal mu lëng bu am 25 ans boo xam ne yoram newu ci yooyu moom tout le temps day am yoo xam ne foo mooy nekk ci bopp mais xam nga règle boo gis rek am na exception am na ñoo xam ne dañuy bàyyi mu sedd quoi mooy loolu. noonu la demee conseil nga xam mooy jeunesse bi. waaw jeunesse bi rek xam ne réew ñu ñoo ko yor. réew ñu ñoo ko war a mën a doxal quoi sinon suñu xoolee suñu papa yi nga xam ne ñoom wàcce nañu yoon ñu ñëwaat toppaat même pied boobu ñu ñëpp xam nañ fu ñuy atterrir parce que tey jii nii soo bu dee da baax am nga exemple bu nga war a roy bu dee aussi da nga def safaan am na exemple nga war a roy yooyu lu mat a bàyyi xel la quoi loolu laa am lu conseil bu ma leen jox quoi ok jërëjëf ok ok